ndaxte xarim Gueye moom yàgg nañu PDS lu nekk def nañ ko ndongo mii suñu promotionnaire la ñun ñoo bokkoon di jàng fii bi mu demee ba nekk bañ bañ ne dugg ci politique bi tam ñu ànd di nekk ci politique bi lu nekk daj na ko ci moom itam ci PDS lu nekk dal na lu nekk daj na ko ci PDS bon booy Moussa mii nag kii moom booy Moussa moom ñu ngi doog a tàmbali di ànd ak moom bëgg a ànd ak moom bon li ñu koy wax nag mooy su ko yàlla mayee li muy wut bon na xam te nekkul mooy kan waaw bon quant à Saloum moom soo nee Saloum Sarr dana am xel yu bëri fu ñu dem ndaxte vraiment ñoo baayam ñun la woon muy xale bu yaru bu xale bi soo doon jàppanteeg baayam tam cousin bi mu toog du wax du la xool yoonam nekku ci ca loolu bariwut man ku doon jàppanteeg baayam laa mais musta wax wala mu wan ma bët bu mu xale bii lu ma naqari lay doon ba nëgë ni kon nag moom itam ñu ngi koy ñaanal bon bis bu yàlla defee moom itam mu war a toog mu rek mu toog ci jàmm ak salaam tu vois booy Moussa nag na nga góorgóorlu na nga góorgóorlu parce que li wér te wóor mooy soo dee wut su la may yàlla mayee lim la may soo ko ñi la doon jàppale soo leen fàtte wut mën ngaa bañ a gaaw a wàcc mais soo leen fàttee yaa ngi ci yoonu wàcc waaw loolu moom na nga ko bàyyi sa xel bu baax a baax a baax et aussi su la yàlla li ngay wut nii nga mel ci nit ñi bul ko changé mukk continuer loolu walla nga gën a woyof loolu da ngay woyof da ngay weex nag aussi waaw monsieur Karim nag xam na li mu bëgg mooy département bi moom la bëgg ah ñun de liñ ci man dañ ko ci def incha allah parce que ñu nag moom la woon ca PDS ñu nag moom la woon ba nëg itam ci PDS bari na ay responsable yu nekkoon PDS dem nañu moom nag mu ngi yore ngoram nekk ci PDS ñun tam ñoo ngi yore suñu ngor nekk ci PDS PDS la ñu nag ñun waaw danañ ko ci jàppale nag suñu kéemtalaayu kattan képp ku nga xam kii dem si waxee ak moom dana ko jàppale danañ wax ak moom waaw ndax mu jàppale ko kon nag wasalaam loolu rek laa ciy wax. bala maa nuyu euh, Serigne Khadim Gueye Ahmadou Khadim géey danaa nuyu sëñ Moustapha Lakaram yàlla na fi yàgg te wér sëñ Moustapha leeral yàlla na fi yàgg te sëñ Moustapha euh, courant yàlla na fi yàgg te wér sëñ Moustapha fañ nit ñi yàlla na fi yàgg te wér sañ sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di la balu àq di leen baal àq di la xamal ni man mii ci sama jëmmi bopp man maire Anta Diouf xam nga ma xam naal ndax yàgg nanoo géew fii euh, géew nu teneeful nga ñëw jox nu fi téeméeri junni mi fédération tooki nu tàmbali cëdd cëdd kon mbir mi yàgg na xaadim lo yootu ci commune yi ding ko am ndax nga jappelé commune yi no bokk liggéey nek département fofu lay ñëkke bala may wax kenn damay wax ak yow ba pare département la nga fa liggéey do MC surtout hôpital bi sem yi ndox mi waaye nak ma nga lay wa de ndox mi ma la waxon bu ko bàyyi de ma wacc tamit da nga yéegaat waaye bu ko bàyyi nang ko def de nat nga ko ba nopi ndongo sen ma ngi len di gërëm Moussa denk nan la dëkk bi jox nan la dëkk bi jox nañ la sunuy tur jox nañ la sunuy sant jox la sunuy gone te nun ñuy mag it noonu si ginnaaw di raam tànk yi day metti de waaye bu soobee yàlla soobente foo jëm ma raam topp ca Moussa yàlla na leen yàlla jàppale ba li ngeen di bëgg yàlla jox leen ko yàlla na ngeen dem ba doyal def yéeg ba doyal ba doyal door a jox ñeneen te gone yi nga xamante ni ñoo toog suñu ginnaaw it yàlla nañ mel na ñun tanoor Diop mii nag dama koy ñaanal rek yàlla na sut bàyyi mu fan fàttewuma ci genn wet wetaluma ci genn wet maa ngi sant yit jigen ñepp ci dëkk bi ak goor ñi ci dëkk bi xalé xale ñepp ñepp jox nañ ma cër bima dugg ci fi bu ko filmé da ngeen ko gis dafa melne khadima dugg si wala musa mo dugg si jëf jere jëf yeen ñi and ak ñom ma ngi leen di gërëm di leen sant musa no ngi lay denk dëkk bi denk dëkk bi nak bayiwunu dara amnu nak dara lu fi nek rek sa da ko fi defone lu fi nekk rek Raymond Sarr ko fi def. waaw dëgg la de. kon nag li nu gis ñeent fukki at ak nangam. ñeen fukki at ak nangam maa ngi Tëneful gii te dawuma jëm fen lu may ci Tëneful gii Kajoor laa dëkk waaye fii rek laay waxee fii laa am kon nag Tëneful gii ku ko defar rek maa ngi ak yow. bi Moussa ñëwee wax ma ay waxam tamit dama ko ne yow de ci sa jëmmi bopp su dee defar Tëneful la tax a jóg bu soobee yàlla dinañ ànd ak yow gone yëpp ànd ci kon nag Moussa ñu ngi leen di ñaanal yan na leen yàlla yéegal te defal leen yéeg bu gën ca yéeg yàlla defal leen jàmm defal ko seenu njaboot defal ko ñëpp ngeen defal nu nag li ñu bëgg bu leen fàtte jërëjëf